waa ay ndimbal yi waa laay fi indi fii nday si nday waa Gueye waaw nday pend moom wax dëgg yàlla day jàppale koñ bi macha allah nit ku baax la bu tawee sa wër sax dugg si kër yi di seen ndax am nañu jafe-jafe ak yooyu waaw wax dëgg yàlla ay jàmbaar lan macha allah waa laay ngi leen di ñaanal yàlla lu nu mën ren bu daw ne yàlla nu mën lu ko ëpp si barke Seydina Mohamed ak nday pend Gueye ak waa koñ bi yëpp daal ñëpp jàpp nañ ci macha allah waaw suba ba tey ñoo fi nag man sama borom kër la woo numéro am nday pend xam na sama borom kër dafa ñëwoon si kër ga taw bu mujj bi nii dafa ñëwoon après mu jël numéro nag ginnaaw loolu si la ñu woo barke barke démb la ñu woo si guddi mu ne bu kiiwee ëllëgee na sama na kenn ñëw daal moom wala sama doom sama doom ñëw ñu jox ko ticket bi léegi na tey ji papa ji ne mën naa ñëw ko tey jox nañ ma ceeb jox nañ ma dawlin ak mboq ak suukar ak kafe ak soble yaakaar naa moo nekk si saag yu weex yi waaw kontaan nu ñoom kay ñal na leen yal na leen yàlla jàppale li ñu mën ren bu déwénee ñu mën lu ko ëpp si barke Seydina Mohamed ak ñeneen ñëpp daal partenaire yëpp bu ñu doon def nii kon ñu bëri duñu yëg jafe-jafe dëkk bi léegi waaw jërëjëf yéen tamit kontaan xam naa de sant bu baax xanaa di sant rek leen ñaanal rek di ñaan rek ci ndey Penda mi fu ñu teg seen loxo ak bi yal na leen ci yàlla jàppale sëñ Fallou suñu sëriñ ndax ndey Penda dafa bëgg sëñ Fallou bëgg soxna mus si sama karit ngeen ñëw jàppale ko walaay fi jàppale leen yal na leen yàlla yokk ba ngeen yëg ko ci barke sëñ Fallou li ngeen def fii yal na ngeen am lu ko lu ko seen jort di jëmmi sëñ Fallou Mbacke xanaa ndey pend bëgg ma rek yoroon sama doom nag sama doom ju jigéen yor ko fii yor bu rafet ba mu sëy mu bëgg ma moo ngi day faatu aan boole ma ci ci rek waaw dugal ma ci may sant di sant nag di leen sant bu baax di leen gërëm ak yéen itam yàlla seen liggéey barke barke sëñ Fallou xanaa mbégte rek mbégte rek nag ndax jabar ku koy dimbali man de am naa ceeb am dawlin am suukar am kafe ak mboq waaw. waaw pour beneen yoon. waaw sedd na guy sedd na guy xol yi na guy macha allah yàlla leen yàlla taxaw.